waaw Ndiaga maa ngi lay nuyu di nuyu waa am la parce que amu maire Amadou jox ay joñam maire Amadou Diarra moo jox ay joñam parce que lii nii am leneen am ñeneen ñu ko gënoon a yelloo pas yaa ngi kon tey mer bu defee def na lu ñaaw amul kenn waaw parce que boo xoolee njaga ñun instant yii nii fii jeunesse bi ay say xale yi booy sax amuñ fu ñu foowee ay say amuñ tere bu ñu fubalee kon tey ñooñu ñooy yàlla wala si ñooñu kon tey lii nii moom moo ko jël jox ko ay ñoñam ñenn ñoo xam ne nii dëkkuñu Dakar ailleurs lañ dëkk mu ci ko séddal leen ko te lii nii def na ko def na lu ñaaw bu yaakaar na lii nii day sedd wala lii nii fii lay am mu ngi ndax boppam lii nii instant nii Pikine waa yëpp dañ koo naqarlu te nag lii nii loo xam ne nii day continuer la de lii nii bañus dara Pikine bañus dara bañus dara maa ngi lancé jeunesse yëpp ñu ñëw seen commune Pikine Nord fii nii maire Amadou jaraa mu jël sunu suuf di koy jaay di ko jox ay ñoñam loo xam ne nii tey sunu sunu sunu doom yi sunu raq yi sunu ay seey tey xajoon nañ ci moom mu jël jox ay jàmbur ak ay xam ne seen mairie la ñu nekk ñu partagé ko tere bu ñu fenn yaakaar naa nag euh, comme moom lay waxee rek nag bu jëm séerage moom ñaaw dee rafet dee essay moom nag foofu la toll moom xam ne mënu am lenn Pikine moom moo tax muy muy muy jaay te xam na ni euh, li muy jaay nii tëwataat ak ku ko mënta jël tamit suñu alal lay doon te te dënk jaar sa loxo